ci nous tegu ko ci lu dul wax ak i des chômeurs à col blanc aucune vie professionnelle aucune vie professionnelle xey rek di wax ba nek policier ñu jël xaliss yépp yëpp xëpp la bu wor mu wor bu naxé mu naxé bu fen mu fen bu laajee fecc coloré mu fecc coloré jaay ngor wante jaay ngor day mom du dëkk ba du jikko ji kenn mënu koo jaay ku ko né jaay nga ko rek won lu ñu wax nga ni waaw benn wii rek ak l'auditeur di tagaté ak di jaayate ñu dajale xaalisu réew mi fay la ci ay millions te ci gi kat diplôme du jeex l'emploi des jeunes moom woy sax ci dëkk bi seen seen retraité yi nekk yor leen ci néew doole lañ leen yore yor doyul pension yu néew xoolal retraité ans seen seen pension fa mu nekk te am da ngay gis sax infirmière benn service ñoo bokk lépp bokk école bu ñu génnee bokk ay diplôme bokk lépp bokk même situation ñu am ay traitement différent loolu fu mu taxaw te teewul te terewul nag ba ñu bañalee yokk loolu ñooñu nekk seen jàmm terewul ci wet gi ñu ut ay caisse caisse noire caisse bleue la xaw ma caisse de solidarité caisse verte caisse d'avance fonds politique caisse sociale caisse caisse caisse caisse te sociale bii li ñuy lëba jëpp li ñuy li ñuy lijjanti yëpp ci labal ci luubal ko ci social lañ koy def te foo toll nag te waroon a nekk nag ay caisse blanche transparente translucide ba foo tollu gis lañ fa dugal lu fa nekkee ku ko fa génne ak lan lañ ci def te xaalis bi yépp nag assemblée nationale nekkalu fi euh, euh, xeet fi la fi nekkal nekkalu fi ma samba wala ma demba nekkalu fi parti wala kuréel te li ñu koy doyee mooy wote ay loi ak contrôler gouvernement député bu la fi taxaw ne dama lay defal tali day waxul deug loolu du liggéeyam ku dama lay defar ay lampe du deug du Tabakal, dina la tabaxal école du deug du liggéeyam mom liñ koy doye moy defar loi ak euh, contrôler gouvernement. té ci juromi at yi woté nañu al député assemblée nationale lu toll environ quinze mille milliards de francs CFA mais ce n'est pas rien ça loolu moy lan mooy population Sénégal bi 13 millions 814 395 personnes yi recensé Sur leen ko de kenn ku am 1 million 85 834 francs boo ko yemaloon si suñu dëkk bi Thiès rek dañuy dañuy xëy jot 542 milliards ku ko def Thiès suuf sax dootu fi taxaw waxuma ay làmp ak leneen dëkk bu là loolu xam nga ñii ñàkkuñu ku ñu contrôler waye ci lan lañ leen dégg ci lañ leen day gis féwolo ngaayo xëccoo xeexoo tëkkonte taggante tàccu absenté et ils sont chèrement payés té li nak fu mu am bu la nexé nak nga wax ni assemblée bi moo yéssi si mas a jaar wax ji ëpp na nak tërëy na té ci ñom la joggé ñu naan déeta waaye ñuy wax ay jalgati ci xaalis ay millions par verre waaye ndax li jàmm la hé waay mbokk yi tee ragal yàlla nañ ragal yàlla ci xaalis yi ñuy dénk nañu ragal yàlla ndax sunu alal yii dañ ci dañuy sonal ëllëg rek te fii lañu koy bàyyi ñeneen di ko jëfandikoo te ñu bàyyi xel lool nag hadisu seydina muhammad alayhi salatu wasalaam mu ne ëllëg kenn du buuse meetar te li nga am fàgg woon waxoo foo ko jëlee ak loo ci def meetar laa wax te kat organe de contrôle yi ñu créé bind nañu ba dara assemblée nationale ay député ño fay n'ek, mandat di jeex ci yu ñu a ci ay élection té mu Nous jam ndax du jamono nous du nous xulo du nous la du de vote ku di nga am di nga indil nit ci problème di janee bése jënd ay voix ku ko ji def boo ay amee yaay ku ko indi te du jàmm ku ñu jox nag jëlal te def li nga gëm xam nga li jëmewul am réew fenn nag waaye réew ak li koy doxal ci loxo boroom jikko yi la nekk waaye lii moom du dara lu dul recul démocratique